wax léegi ak euh, modèle euh, di pàcc bu ñu jagleel xale yu am jom yi euh, am na ku fi ne sax di njóogu afia mais da ci am keneen koo xamante ni mm. Nana dara moom nga seeti woon pour présenter ñu ko tey ci modèle mu ngi tudd Djibril Aïssata Gueye voilà Pape Mm-hmm. dañuy ànd bul déglu ñi bul déglu ñi wéruñu ah. <laughs> Mass dañuy ànd rek ak waa Régis dem euh, seetaan euh, reportage bi ah. Mm-hmm. Mm-hmm. xool Djibril euh, Aïssa. su fekkee pare bu parewul nag ñu dëxuñ ko rek pare na wala pareegul. d'accord ok bëggoon nañu mu pare comme ça ñu jàllale ko léegi nii donc tu disais sànq que moom euh, li la marqué ci moom handicap la am mhm. euh, mais terewu ko nekk nekk nekk jàmbaar daal mhm. macha allah infographiste la en même temps monteur de vidéo ba pare mu am marque boppam bu tudd liberté liberté mhm. da ko da ko créé nee na pour euh, xeex pour euh, jigéen ñi xeex pour ndaw yi xeex pour ñi nga xam ne ne mooy handicapé yi mu nekk nit koo xam ne jàmbaar la boo ko xoolee dafay toog ci chaise mënalul dara boppam hmm. donc man personnellement daf ma étonné nan la def ba mën a xëyee loolu noonu parce que tout le temps dafay soxla assistance hmm. mais wékkuwul ci kenn mu ngi expliqué sax ne jàngam lu boo gisee mu yàqu hmm. saay bu daan dem jàngi ay sœur ay frère am ñoo ko daan yóbbu mais mu dem ba xam ne loolu tamit day metti ci frère parce que amuñu vie il était dépendant de daal donc mhm. mu mu jël ay responsabilités ne yaayam sincèrement mhm. ñi mënatuma wékku torop ci ñoom daal mhm, daal di ci la commencé am xelu créer marque boppam à part si jàng na def na ay études muñ ma ngi may envoyé message di ma wax tamit ni naa ko remercier yaayam parce que yaayam à cause de handicap am yaayam da ci daan bàyyi yaa ay liggéeyam yu bëri boo ko yàqu na ci daal voilà mu nekk ku am jom daal muy voilà ci kanam tuuti dinañ ci dinañ ci ñëwaat bu dee reportage pare na. voilà donc ñu bàyyi ñu bàyyi ci ginnaaw euh, bu fekkee noppi na kon ñu teg ko pare na ñor na ñor na ayca kon ñu xool. ñu xool ko ayca. je sais même pas comment je suis devenu handicapé c'était c'était depuis bas âge ba may nekk xale genre ba may màgg dañu war a expliquer naan moom balaa quoi dangay nekk xale t'étais actif comme tout autre enfant mais dangay xëy benn jour rek voilà. affaire yi daloon nii vite fait genre j'avais ay deux ans affaire yi man j'ai même pas cherché à savoir ba ma nii sax laa dégg suñu expliqué des fois ñoom ñu expliqué ba ciy bàyyi nopp je me suis dit juste que ndogal la voilà et que on doit surmonter ça loolu moo war man dama doon jàng taal bi daawoo euh, jàng naa fa ba ay CM2 affaire yooyu noonu mais après je pouvais continuer. parce que saa yu sama daan jàngi dañ may am sama benn frère bi may boole chaque année scolaire moom may yóbbu des fois frère bi moo doon jël arabe yi beneen arabe yi beneen frère bi ñu dem ba xam ne loolu mënul nekk parce que ñoom aussi am nañ seen avenir genre mënuñu woon ko ne chaque jour di ma yóbbu te ñoom war a tekki ëllëg affaire yooyu noonu pour marque bi moom voilà man dama bëgg musa dama musa bëgg ay affaire de solo genre des fois sax sama yi damay génn may toj na ma jaaykat baa ngi bëggul tax bëggul def dara di genre dafa dafa yàgg neex quoi. ma nekk infographie genre je pouvais créer des designs je me suis dit pourquoi pas créer sama marque bopp affaire yi noonu loolu moom fi jógee bon ñuy liggéey ci marque bi bëri na parce que bu ma ko defaree ba pare damay woo imprimerie bi damay woo ci jaay t-shirt bi d'abord. ki ñuy jaay t-shirt t-shirt unique affaire yi noonu je commande des t-shirts après dangay ngay woo imprimerie bi mu imprimer mu imprimer design bi après voilà da ci la poste da koy posté si net bi après ku commandé da ngay yónni livreur mu dem livrer ko donc voilà defe naa ñuy job si marché bi bëri na ñu ñaan rek eh, voilà quoi lu ñu bëgg ñun suñu suñu avenir yàlla may ñu ko bu ñu ko yàlla may moom wax dëgg yàlla ñun mosuñu la neex ñuy dox nii wala ñuy doxantu genre di gis ku yàlwaan dina moom yaakaar naa même ku dul handicapé sax neexu la waxatuma la ku ko ko nekk donc boobaa lu leen mën na dinañ leen ko defal incha allah. projet bon continuer ma marque et avoir une une que voilà man gëm naa ne loolu mooy mooy mooy sama sama job. mooy sama job quoi genre avoir son propre imprimerie nga xam ne je ferai plus sous-traitance moom ay gën a arrangé genre loolu loolu moom voilà c'est ça mes projets mais pour samay difficulté man si pour man sax handicapé yëpp xam naa loolu dina ci gis seen boobu muy question de transport Sénégal Sénégal wax dëgg fa ne yàlla man moom si damay gën a bloqué si sama liggéey ak si samay activité yëpp ci la bokk ci kanamu bis yëpp boo gisee dañu ciy gis bi ñu dessiné si chaise chaise roulante bi mais bon man je parce que yaakaar naa ne borom bis may dugg am na ràpp yow boo gisul ràpp bi sax fa mu nekk borom bi dina ne am na ràpp wala fa ràpp bi nekk wala dara des fois si boppam boppam ñiy dawal bis bi ñoom ñooy ñëw jàppale ma pour ma yëg ma famille ma mère affaire bi lépp moom la genre bu moom tey jii nii dinaa toog buñ ma yoroon yar boo xam ne sax damay yelwaan wala dara tey jii defe naa ne jekku naa pour def loolu noonu mais bon. jom lañ def jom lañ def si ñun liggéey fa la am yàlla amal sa bopp te bu dul woon moom tey jii du ma jàng wala affaire maa ngi remercier sama yàlla bu baax. man manquant bi moom sama yaram a ngi daw maa ngi a jooy parce que voilà euh, euh, témoignage bu euh, daw yaram mais jàmbaar la quand même ah je sais que mu ngi naan looy jooy man dama am jom et c'est boo ko xoolee rek ci te rends compte xale la en xale bu ndaw la Pape man personnellement dama ko estimé comme sànq ni ma ko doon ah waxee c'est bi mu am ci mode moo en tout cas handicapam daal wàññi ko dara ah, dafa ah. jóg ñafe xam nga yaayam tamit nekk koo xam ne da ko soutenir da ko jàppale jàppale ba mu àgg fi mu àgg ñu bëri dañuy am ay doom yu handicapé di ko nëbb wala du ñu dem école mais moom boo ko xoolee macha allah il s'exprime très bien en français jàng na infographiste la rek ci am marque boppam am euh, am cinq personnes je pense ñooy euh, liggéey autour euh, de set marque donc ñu koy féliciter di ko encourager difficulté bi mu wax ni nag moom la am par rapport ak liggéeyam mooy transport ñëpp xam nañ ni handicapé moto dafa metti donc pour nga déplacer wu des fois nga xaar bus ba bus ñëw nga tu te ni amoo rampe nekk problème pour déplacer wu dem ñëw accès yi te daal loolu yaakaar naa ni gouvernement bi ñoo ci war a jug directement parce que ñoom tamit ci société bi la ñu bokk koy féliciter di ko encourager aussi mm, mm, mm. dañ bu baax ah c'est vrai que tey da ngaa tendance ñaatam ba gis nga de <laughs> parce que lii mission wu ñaatam la chaque vendredi mm-hmm. euh, dafay waxtaan nag ñi nga ni ñoo amee laago mm-hmm. te terewul leen doon ay jàmbaar c'est mm-hmm. vrai que tey xaw na laale mais modèle la ci xale yëpp ah, moo xam ku am validité wala ñu seeti tey mu ngi mhm. tudd Djibril Aïssata mhm. Gueye mhm. Euh, c'est un jeune chef d'entreprise donte am na handicap euh, ñu ngi koy encourager faites comme lui euh, am jom rek Pape juste yokku ci rek ni laago du wees parce que mi ngi expliquer ni moom ba muy juddu dara dalu ko il était très très actif moom xamul sax lan moo lan moo xew nee na saa bu laajtee nit ñi kenn mënu ko expliquer ni lii moo tax nga handicapé donc xam nga ndogalu yàlla lii la yàlla na nam moon ci moom rek donc ñu bàyyi xel daal ci ñi nga xam ne ni ñu xam ne ni ci réew mi la ñu bokk daal moo tax euh, bu la alalu àddina jiital mm. euh, euh, ba nga jaay sa ngor mm. wala sax ngay def ay sacrifice gis nga réew mi léegi am na ñoo xam ni ah, ah sañ naa ni amuñu jom ndax ñàkk jom weesuwul dem gisi sëriñ mu ne la sàccal xale ray mm. bu dee bëgg nga am kër wala bu dee bëgg nga am xaalis defal tel ou tel sacrifice bu buggee am lii am na ci ñoo xam ne nag rayuñu waaye daanaka jaay nañu seen ngor ci yooyu yëpp nag saas benn baaxu ci